boobaak léegi def na fukki fan tey ñu ngi koy wër jàq ak jaaxle nit ñëpp bu ñu xëyee dañuy am benn espoir mooy xëy gis leen ñu ne y a une très bonne nouvelle Diary Sowa a été retrouvée hier pour la première fois sa mère s'est adressée à nous on écoute cet élément euh, venant de notre correspondant depuis Mbour on se retrouve dans la deuxième partie avec Chana à tout à l'heure di wax ne tiis bii daal suñu kaw ci kaw senegal gi yëpp la dal muy disparition jaari Sow bii nga xamante ne moom la sénégalais yëpp di jooy di ko jàmbat di ko naqarul fi mu toll nii ñu toll nii képp kuy yaay ku nekk rek soo tëddee doon nelaw ndax yaa ngi xalaat bi affaire bi amee ba léegi kenn mënul nelaw kenn mënul toog kenn mënul def dara ndax affaire bi ñëpp moom la ñuy xalaat ñëpp moom la ñuy jàmbat waa xanaa kay di ñaan yàlla rek ak fu mu mun a ne ak ci lu mu ti ne ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax a baax ñu gisaat ko ci jàmm ak salaam ndax ñëpp am naqar fi mu toll nii kenn mënul wax ku bëgg ku ne dangay wax tamit da ngay jéem rek dangay ngay forcer mais mënuñu wax moo tax depuis affaire bi am ba léegi kenn dégguñu si parce que mënuñu wax mais gis nañ ci taxawaayu sénégalais yëpp taxawaay biñ ci am yëpp gis nañ ko ñëpp a ngi ñaan ñaan yi ñu ngi jóge fu ne ñu ngi ñaan yàlla rek yal na yàlla nangu ñaan yëpp ba fu mu munti nekk mu ñibbi si ñëw fekk si ñu fii si jàmm.